jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su mbokk yi ñuy wër ndaanaan ni ba tey leen génnee ci biir ndaanaan yi tey ñu ngi fii ci marché du port seet fi champion boo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy Zal Ndingler tey Zal la wasaare làmb seet si ngir ñu waxtaan ak moom gën nañ koo gis waaye gën nañ koo gis ci bëre door bi lutte simple bi mu ngi fiy def ay jéego yu mucc ay macha allah bërki démb ca journée Yaxya Diop Yékini bi nga xamante ne moom la tëggoon ale stade arène euh, Caroline fay bu mbuur gis nañ ko fa lam fa def tey moo waral wasaare lamb seet si ko waxtaan ak moom xool ban position la taxawee ci làmb ak ay mbokkamam xaritam ak am di jàmmam. Zal maa ngi lay nuyu. Baye Djili maa lay delloo ziar di la bëggee xam di la wax yow dalal jàmm yàgg nga àndal yëpp bàyyi bàyyi taf maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. sëñ Basiru Baara xam di leen xam nga kii daal ci li ngeen di def aussi yéen itam parce ay dugg di génne champion yi. Hmm. xam nga di leen génnee pour xam nga ñu génn dem si gars parce que loolu lañ manqué woon ñun. Hmm. waaw di ziar nag sama gaay yëpp waa marché du port maa ngi nuyu ñëpp ma kenn di nuyu Ali sama gaan sama copain xam nga sama lépp hmm. xaadim Serigne Ndiaye xam nga ñoom Thierno Talla Mbaye xam nga sama booy ñoom laay Maguette Aliou ak champion Pape Malick bàyyi ma kenn Malick tu bàyyi ma kenn barki alxuraan waaw. dugal ci làmb. làmb nag dañ ci dugg doon ay ndaw ànd ceeg sunu gaay yi xam ñu teete ñu ci ku ci mel ni Souley Faye Ali xam nga ñoom ñoo ma doon teete ci làmb di ma jàngal. ba tey ma doon mbër te bi may ñëw fii sax bëri indi ma fi woon Dakar mais dama dem ba nekk ak ñoom ba vise bi dugg ma xam ma dugg ci doon champion nag ñoom ñu bàyyi seen lépp topp ma ñoom ñoo doon bëre dem ba bàyyi man ma doon mbër ñu bàyyi lépp topp ma waaw ñoom ñoo ma dugal si làmb ginnaaw yàlla quoi. kon ba ngay jógee dëkk ba di ñëw dakaar làmb indiwula woon da ñëwoon pour. ñëwoon pour si waar. Hmm. di liggéey ak lépp mais dama ko doon booleeg entraînement yi xam nga di dem géej di contact ak gars yi xam dem ba daal yàlla dogal li muy dogal noonu la demee waaw. ban jour nga njëkk a takk ngemb dugg ci làmb bëre. jour bi ma njëkkee takk ngemb nag maa ngi koy fàttaliku Thiès la woon maa ngi su lay fay. Hmm. sama doomu ndey su lay fay. ñu ànd jóge fii mu ne ma mbapat am na cees xam nga. paasal ma jour boobu man sax yoruma lu ma paase moom moo ma paasal ñu àggu moom muy bëre poids léger man may bëre poids muy bëre bi gañe ko may bëre ba jël drapeau bi si poids lourd bi quoi. mu doon fierte si man doon lu ma bett xam nga mu am si yéeg-yéeg itam kontaan ci parce que dama ne woon xam nga maa ngi ko doon seetaan mais lamb daal neex na trop. bi ma ci duggee parce que dama ci dugg sama première fois yàlla def ma jël drapeau bi mm. ma koy sante yàlla xam nga ci laa jaare nag affaire yi nekk ci di ci dóor waar di liggéey di entraîner xam nga bu lam amee ñu dem mm. maag sama gars yi daal lépp mm. waaw foofu laa njëkk a takkee ngem boobu nga takkee ngem ngemb dem ci làmb boobu bi ko say parents yëgee lan lañ wax. waaw xawoon na leen bett nag trop parce que ñoom mosuñu yëg ne damay bëree xam nga mais à dem nañ ba xam ne kii kat lii gëm-gëmam la mu ngi koy def ànd ci jom ak fula waaw mais bi ma koy def tàgguwuma leen sax dañoo dem ba dégg na damay bëre ñu may tere yëpp mais en dañoo dem ba ci kii xam ne man daal gëm naa li may def bëgg naa ko ñu ñaanal ma si ba yàlla def li muy def tey waaw. nga jóge ci mbapat yooyu continuer di bëre mbappat kañ nga dugg si ci arène. arène na maa ngi si dugg 2015 2015 waa stade Ngor. ci saat bu ngor sama combat ak Delta mu doon sama première combat. waaw mu doon aussi loolu fierté bi ma njëkkee am combat. arène dama kontaan parce que xam nga dama ko doon séntu bëgg ko trop te mënu ma ko woon am. yàlla def Cheikh Diouf wutal ma combat may gërëm Cheikh Diouf au passage parce que moom lu ñu am ci làmb tey ginnaaw yàlla moom la. parce que moo ñu wutal combat di ñu tette maanaam petit combat ba grand combat daal moom moo ñu ko wutal ma ko ciy sant xam nga waaw dugg stade bu Ngor bëre ànd ak sama gaay bëre xam nga yàlla may ñu ndam ma feete ko ak samay mbokk. ki doon bëre nu mu tudd. Delta la. Delta ñoomi ko waaw. Mm. xam nga ko. moo doon sama premier combat ma bëre ko yàlla may ma si ndam ma ñibbisi xam nga ànd ak samay mbokk ànd ceeg waa Ndingler xam gën a am courage ñu may ñaanal ñu commencé ma gëm xam di ma ñaax noonu la demee xam ne kii kat li muy def nii gëm na ko mm-hmm. parce que boo bàyyi ko village dëkk ba fu mel ni Ndingler xam mm-hmm. ñëw dakaar di bëre rek dañu naa kii li muy def am na jom ji am na fula ji parce que loolu yombul quoi mm-hmm. noonu la demee. da ñaata combat arène. bëre naa dix combats sept victoires trois défaites. sept victoire trois défaites. noonu la demee. kana kana la daan. ñi ma daan nag xam nga bëgguma sax di tudd seen tur parce que su ma leen tuddee tey xam nga muy loolu xamatuñ leen sax ci làmb xam nga des fois champion dina am mbër mu ko daan ah dem ba si biir. baax ci ñi yaa ma gën a xam wala rappelé wu. ki ma njëkk a daan ñu ngi wax général Diouf Mbour. xam ko waaw moom moo ma njëkk a daan. Mm. Mhm. moom ma njëkk daan daan Essar Iba Mar Diop xam nga mu doon defet bu ma metti aussi parce que séntu mu loolu heure boobu noonu. parce que moment boobu tegle naa victoire yu bari xam nga ñëw fii xam nga séntu mu loolu quoi moom moo ma njëkk a daan Dakar fii. waaw ak Roji. Roji Roji xam ma sax ban igri la ne. wóor na yàlla. Euh, Roji bi mu lay daan ak général Diouf boobu mooy sa ñaata combat. boobu mooy sama presque. ay sixième combat. sixième combat. kon bi nga njëkk am defet ci hmm. parce que fekk na ma bëreeg saako ba grand combat sax daan ko. ñëw fii daan Delta xam nga daan ay Boy Gueye yëpp ñëw fii ñu soog mu ko jox. noonu la demee kan moo la daanaat troisième fois bi. troisième fois bi kooku fàtte naa turam sax. barki yàlla. nga ñi ma daan moom xam nga ñaar laa la ciy sitil lekk ay champion. ku ci mel ni Boy Pambal xam boo pambaal bu dóor dóoraat. noonu la demee nekk fekkee ma ci boole léegi. la demee maak moom baat ak tontu la. yàggul sax yaa ngi comprendre. daan almaami bu bu Kër Masaar. moom laa mujj moom laa mujj daan daaw grand combat. almaami ñooñu ñaar ñooñu rek laa lay wax ñu ci des jarul tudd quoi yaa gën a xam. kon daaw nga mujjee bëre. Mm-hmm. daaw la ku tëggoon lamb jooju. journée ñi ngi production la woon. ñu ngi. Mm-hmm. daal mu ngi ci deuxième journée la vingt neuf février. waaw mi ngi si. mi ngi si. mu ngi lay contact. waaw ñu ngi waxtaan nag mais xam nga rek yaa ma gën a xam. affaire yi daal dama yaakaar daa jotagul rek. Hmm. mais fu ñu war a lijjantee combat war ko faa amee rek ñu ngi ciy dox. Hmm. di ci yaakaar yàlla aussi xam nga ak sunu gaa yëpp di leen xaar rek saa bu yàlla dogalee rek ñu jël. zaal bëre bi kenn nataabale wu ko ndax keroog gis naa la nga bëre. Mm-hmm. seetaan naa say komba mm-hmm. mais xeex bi moo ma wóorul xeex bi nu mu mel ci yow. waa xeex dinaa la joxaat sama beneen combat maag Eumeu Sène 2 École de lutte Mansour bi may bëreek moom dañ ne ko xam naa kii mbëru mbapat la mënul xeex yàlla def ñu bëree ma dóor ko mu daanu stade ba Mar Diop. dóor mu wàcc dóor mu wàcc gaa yi nii xam nga dóor mu wàcc kon xeex ñun mën nañ ko parce que dañ ci juddu bool bool boo fa dëkkee rek xam nga ngay mën xeex parce que da ngay xeex chaque jour temps booy ñun dañuy xeex xam nga def lépp. kon bu ñëwee dakaar bu dee xeex rek mën nañ ko xam nga xeexu làmb méttiwul dama ko dóor mu daanu xama nga xeex ak ñeneen ak ñeneen gaañ leen waaw mais bëre daal moom bëgg nañ ko xam nga yaakaar nañ ko te ñu ciy ñaan yàlla xam mu jox nu ci ay ay mbégte parce que sonn nañ ci quoi. simple bi saison bu ubbee ba tey. Mhm. Euh, ñaata sorti nga def. ak loo ci loo ci am. maa ngi def euh, def naa presque quatre sorties quatre sorties walla cinq ñaari làmb rek laa ci dem lekkuma benn bi général Malika laa daan final arbit yi bañ te loolu sa dama ko daan. mooy ban euh, le vingt cinq bii passé laa ko daan arbitre yi bañ ma wër ko ndoom ba yenu ba taxaw dóor général Malika gars yi bañ xam nga ma ne garaawul. kon yow la di jooy la demee nag boobu maa moom ñoo finaalu mais maa ko daan daanaat ko arbitre yi bañ. mais garaawul arbitre c'est le maître du terrain ñun yàgg na ñëw bëree xam nga loolu garaawut ñooy dajawaat suba. beneen sorte bi ma ñàkk demi final xam nga mbuur keroog quart de final laa ñàkkee. xam nga ki ma éliminé ñi ngi koy wax euh, nan booy bi moo bëreeg franc quart de final bi sax. moo fare moo bëre demi final bi yaakaar naa waaw. moo bëre waaw. yi. est-ce que du kii booy xaw ma nan. léegi nga jógee foofu ci mbuur bi ñu éliminé la quart de ma demaat beneen làmb ci guddi gi. ànd ak sama association des promoteurs tëggoon yaa nga fa woon. boobu ñëw mu woon nag daf ma fekkoon village quoi sama benn copain moo doon xewle xam nga rek. Mm. ci lañ nekkoon mais fekkuñu fi woon. Mm. mais fekkoon moom dañuy wàcc. yaa ma gën a xam jël suñu wërsëg. Mm-hmm. léegi fi mu toll nii. fan nga toll ci làmb. nii xam nga bëgg naa combat bëgg xam nga ponkol yi jël ma parce que ñun làmb dañ cee yàgg a xuus mais ba léegi àggaguñu fañ jëm parce que mbër yi dañ ñuy daw xam nga dañuy war a jël di ñu war a bëre xam nga ñu changé jox ñu keneen def nii def nii xam nga gars yi ñu war a bëreel ñoo war a ñëw ñu bëre suñu biir mën a mayante xaalis. man ku ma dem seeti mu ne ma mbër yi nañ ñëw ñu bëre suñu biir te suñu biir boo xamante ne kan nga war a bëreel kan nga war a dajal. ku ci mel ni laay Pythagore dafa war a ñëw ñu bëre. kii kooku motloo Lo moo liet naa am fi mu ban Modou kooku couronne bee nga parcelle fi waaye ban couronne loolu dara loolu dërëm. waaye am na doole loolu dara ñun ay xale lañ ay ndaw lañ te dañ ñooy yaakaar ñun ñun dañ ñooy yaakaar ñu dëkk-dëkk boo xam ne aussi ñun ñoo fay champion di nuyu mbër ya fa nekk yëpp ku ci mel ni Mamadi sama booy xam nga ak Baye Jéeri ak Sita xam nga maay maa leen di bëggee ñoom ñëpp. sëñ Bas mais bu jëloon avance laay Pythagore ne la am mu ngi nii da koy lekk. waaye kon gars yi yëpp tey ci la ñuy añ sama gars yëpp tey ci la ñuy añ kon. bul ñëw fi gis sa gars yi fii leex rek. suluxu lañ ci añee tey kon ci ndumbe suluxu nga naa ma lan mooy yow. Hmm. laaj Pythagore du dara dañoo ñu bëre. laaju ma ko nag mais làmm moo ñu boolee dañoo war a ñëw ñu bëree ñun ñëpp mayante xaalis. bi mu def ci contre ñaq jariñu nga yaakaar yaa ko mën. non bu doon moom laa gis du ma ko laaj laaj champion la hmm. champion la def na fi ay jaloore xam nga na ñëw ñu bëre même bu dul moom itam xam nga ku ci mel ni Mama Lamine war naa yow ñu bëre. <laughs> yàlla. dañoo que xam na. Mama Lamine maanaam dugg na ci suñ biir duggaat suñ biir dafa war a yow ñu leeral ko nag mu jeex xam nga. nu mu duggee seen biir kan ak la fa mos. non mosu fa kenn kéwél moo ko mos. kéwél moo ko njëkk a mos écrit bool xam nga mu dajeeg sama doomi ndey Buur Siin xam nga gis nga nam demee dafa war a ñëw nag ñu leeral ko yaa ma gën a xam ñu finaalu ko quoi mu jeex ñu xam ki mën. bu a Lamine wàccoon arène nationale nga wàcc fa di nga ko dëkk. non dinaa ko dëkk kay. parce que dama soxla jàkkaarloo Maama dëkk. mooy dëkk ku dul moom. mooy dëkk ko dul moom. Maama Lamine gaynde la de. ah gaynde la nii rek mais ñun ay champion lañ ay gaynde la ñun tam barke yàlla ay gaynde la ñun yu mag sax. damaa gis ni ñu amee ci yow yaakaar rawatina waa Ndengaleer ak ñi nga xamante ni ñoo nekk marché di port. Mhm. gis naa ni ñëpp am nañ ci yow yaakaar. Mhm. yaakaar gi lan la. waaye yaakaar ji xam nga passé wut man xam naa ne ñii xam nañ ne kii gëm na li muy def te bëgg na ko. parce que damay yàgg fii di tarbiyu di bëre drapeau bu ne indi naa ko fii. ba may doon booy ba léegi drapeau bu ma jël fii laa koy indi. moo tax ñu xam ne kii li muy def bëgg na ko te yàgg na koo def xam nga gaay nag ñëpp ay borom baax lañ yéene ma liñ yéene champion yi parce que xam nañ ne kii kat cëram mi ci làmb ji. barke yàlla ku ci mel ni Serigne grand Serigne. su ma amee combat da ciy jàpp xama ci def xaalisam. waa ji moom sonal na ma trop. Ali kii sama lépp la. kii nii borom kii sama lépp la fii tawoon fii leer na gaa yëpp ñu ngi nii. Hmm. kii moom moo ma def champion. Hmm. su ma nekkee ci làmb ba heure bii yàlla kii a tax du ko ragal fenn barki alxuraanul karim hmm. su may wax ci moom nii sax xama yaa ma gën a xam nañ bàyyi noonu rek. barki yàlla mais kii nii moom yàlla rek moo koy fay. moo xam li bëgg yàlla na ko yàlla fay. te mu doon lu gën ci moom moog njabootam yëpp barki yàlla. Mm-hmm. nekk na loo xamante ni nit ku nekk rek fi mu la féete foofu nga koy féete. bëgg gi mu la bëgg ak cofeel gi mu am ci yow. ñun ñuy dund làmb xam nañ ko. Mm-hmm. bëgg na ma ko wax mu ne la Zal moom dafa mel ni yaay roi des arènes. loolu waxatuñ ko leer na ñi ñëpp. barki yàlla man lay sigee fu mu nekk. dëkkam lépp ay champion lañ mais man man la man la gëm man maay mbërëm. Mm. barki alxuraan lijjantiwut beneen champion nag. Mm. man rek la gëm. te man moom laa gëm lu ma wax ci àddina moom laay def waaw bokkuñu ndey bokkuñu baay bokkuñu sax dëkk mais yàlla moo ñu boole yàlla mooy gis nit xam nga boole mais kii yàlla moo ñu boole man ak moom barke yàlla yàlla bu yàlla bu yàlla xam nga tas yaakaar ji yàlla musal ñu ci saytaane xam nga dolli ñu sutura ba li muy séntu ci man yàlla def ko. Zal noo gisee làmb fi mu toll nii mu ngi dox. waaw làmb mi ngi dox mais xaw na xaw na xaw na kii quoi mi ngi xaw a sooxe tuuti parce que. parce que parce que promoteurs yi tëggatuñu mbër yi ñu ngi nii. Mm. gars yi toog kenn amul combat làmb gën naa jax nii yow xam nga loolu. Mm. mais moment bii nii xam nga làmb daam lu ci nekk. Mm. yaa ngi dégg affaire de doomi mbër moo fi am affaire de xam ku amul xaalis doo bëre xam nga affaire de ginnaaw loolu moo fiy dox moo tax champion yëpp suulu. barke yàlla moo tax lan nga yaakaar ni moom moo ko war a régler parce que promoteur yi da ngay wax des fois ñu ne amul sponsor violence bi dafa bëri ci làmb communication bi moo rey làmb yow lan nga gis ni en tant que mbër moo war a mën a dellowaat làmb làmb nekkoon fa mu nekkoon 2009 2010. waaw ñu àndaat waxtaan rek ñi sekk làmb ñëpp àndaat waxtaan xam nga tënk lu leer nañ mbër yi xam nga gën a gën a gën a gën a gën a gën a bàyyi violence bi xam nga promoteurs yi gën a ñëw aussi ñëpp ànd booloo daal waxante dëgg ñu ñu yëkkati làmb man loolu kese laa gis instant bi parce que làmb mooy suñu sport traditionnel ñun moom lañ moom lañ am munuñu am beneen sport bu dul làmb waaw ñun Sénégal fii ñëpp làmb lañ xam te làmb dafa neex foofu góor la yéeg ci kaw sañ si xam nga sol lu rafet toog di seetaan làmb loolu dara dàqu kon làmb ñun xam nga gars yi war nañ ko defaraat bu baax waaw. ma ci ma ci ma ciy nuyu sama papa Alioune Sarr xam nga docteur Alioune Sarr maa ngi koy ziar bu baax ak waa CNG ñëpp sama papa la day ñëw bu fii xam nga di ñu ziar di ñu ñaax ñu koy ñaanal bu baax moom it xam nga mu am jàmm bu baax gën a defar làmb waaw lépp lu koy yàq daal mu génne ko luy defar làmb mu dugal ko. daal non. mbër atam mu naa la 2002 laa judd ak oh, samay at kon baal mu bàyyi mu set parce que bu ko waxee da ngay reetaan xam naa ne. waaw. reetaan nga am. baal ma bàyyi mu seet <laughs> ah. mhm. xale nga. waaw mais gis nga ay xale lañ. xale nga ci âge waaye jëmm ji macha allah boo duggee làmb da xam ni. mooy dugal loolu nag. làmb ñi ci doon ay ndaaraan yëpp instant yi ñu toll nii ay xale lañ. yow xam nga loolu. ay xale ñoo koy def ñooy dugg yëgal ko nga xam ne ñii ay xale lañ dañ see tollu waaw. daal làmb kan moo ci dàq bëri. làmb xanaa man. man de gën dàquma bëre moom làmb jëpp ba mu daj nag kale buy daan mbër ma ngeeg man kale buy daan mbër maa ngeeg moom gaa yi nii barki yàlla. am nga koo xamante ni gis nga ci moom bëre boo xamante ni soo ko gisee ndeysaan sa xol day sedd parce que da ngay naan kii daal su ma sañoon mel ni moom ci bëre. am ku ci mel ni ku ci mel ni xanaa maam Góor Diouf ak Boy Diobaas sama ko fee. waaw ak booy Diobaas Diobaas buy bëre damay kontaan. barki yàlla damay xam ne ndaanaanal bërekat mooy bëre nii. Hmm. ku ci mel ni kéwél xam nga ku ci mel ni Wuli De. Hmm. ku ci mel ni Boursine ñooñ bu ñuy bëree dama ci yéeg sama bopp. waaw parce que ndaanaan lañu te dañ koy def ak fula ak fayda ak jom. Mhm. kontaan nañ bu baax a baax a baax xanaa dañ lay bàyyi nga tàggoo rek ñu lay jaajëfal bu baax a baax. a gën a bëgg nag yow Baye Djily loo kontaan kontaan naa lu ko raw. barki alxuraan parce que yow li nga ma def nii tey dama kontaan xam nga ñëw fekk champion ba fi muy joobee jël si ko ak ay gaam xam nga yow amuñu sa fay daal ñu ngi lay ñaanal jàmb li nga bëgg daal yaa ko xam yàlla may la ko mu doon lu gën si sëñ Basiru ngeen am jàmm waaw jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb kooku mooy Sal Zal Ndingler xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb mu ngi def ci lutte traditionnelle bi ay jéego yu macha allah mu ngi koy def tamit ci bëre dóor bi parce que ku ne am na sept victoire euh, trois défaites euh, champion la ci làmb bàyyi leen ko xel bu baax Sall ñu lay bàyyi nga tàggoo tàggoo bi dul tàqali ko ba ëllëg. waaw tàggoo bi maay santaat sama gars yi xam nga di gërëmaat ñëpp di gërëm sama mbokk yi waa Ndingler Jooba Saga Ndele maa ngi koy bëggee lu bari di bëggee sama booy Pape Malick champion ngi nii nag yow xam nga ko bu baax di gërëm xaadim xam nga gaa yëpp noonu la demee Talla Mbaye noonu la demee noonu la demee champion bu mag a ngi nii hmm. di bëggee Malick yaa ngi dégg di bëggee waa Ndingler ñëpp bàyyiwuma kenn suma ma limee damay juum am di sama booy maa ngi koy bëggee lu bari di bëggee Baye du boroom Kër Massar xam nga Omar di gërëm waa Ñaaxar bu baax a baax a baax di gërëm waa Simal bu baax Simal maa leen di gërëm bu baax waa Jofoor waa Jilaas di gërëm Suley Jilaas xam nga ku ci mel ni Mbaye maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm waa Medina ñëpp. rue 31 rue 25 fa ma dëkk maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di gërëm waa boulangerie Soumbé Dioum xam nga Youssou sama patron moo ciy jàpp suba gi moo may jox ay ndekki yu baax xam bu baax di sant ñëpp di nuyu sama yaay bu baax ndengaleer di ko ñaanal mu yàgg fi ba fekkee sama njëriñ sama yaay maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax mu am jàmm mu am wér ba fekkee sama njëriñ di la bëggee lu bari baa jiili barke sëñ Bamba jërëjëf mbokk yi kooku mooy Zal Ndingler la boo xamante ni li ma leen waxoon sànq rek kon noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xeexu laam. jërëjëf rek muy gaaw.